di julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam bu ngeen gisee fa tabaarakallahu jotaay bu am solo bi jotaay bu tedd bi ngeen xam ni am na lu rëy lu nu dëkkmal loo xam ni waa kër yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoom ñoo ko dëkkmal muy programme bu mag conférence religieuse boo xam ni ren le cinquième édition bi fii ci dalifor le 10 décembre fa tabaarakallahu di dimanche ànd koog fa tabaarakallahu ñi koy taxawal Euh, muy oustaz Alioune Mbaye fa tabarakallahu euh, liggéeykatul islam boobu jàmbaari Seydina Mouhamed boobu à travers euh, rajo Sud FM ki nga xamante ni kenn dootu ko présenté kenn di liggéeykatul islam bu mag à travers rajo bi waaye di à travers daara yi nga xam ni moom la sampal Seydina Mouhamed waaye di liggéeykatu Seydina Mouhamed à travers fondation Sopp Nabi bi nga xamante ni moom mooy responsable moral ànd kook jigéenam yu tedd yi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 dañoo dënmal bis bu mag muy bisu Seydina mohammed sallallahu alayhi wa sallam ànd kook suñu responsable moral muy oustaz Alioune bay ñaanal ko yàlla yàlla na ko yàlla dëgëral ñuy wax ci suñu tëru présidente nationale de Adja Ndeye Marème Sarr yal na yàlla oyofal yan wi dënmal bis bu mag muy dimanche le 10 décembre conférence religieuse bu sopp Seydina mohammed di def at mu nekk ren di suñu juróomeelu at ñuy ñaan yàlla yàlla nañ ko yegg ak jàmm daraje Seydina Mohamed yàlla may ñu ci ndam ñi ngi ciy woo nag julliti yàlla yëpp ñu ciy woo fukki cellules yeeg juróom-ñett yi nga xam ni moom la ñu am fii ci Dakaaru Njaay ñuy woo région de Dakar yëpp woo àddina yëpp Seydina Mohamed ñëpp ci lañ ku dégg woote bi rek na xam ne moom mooy sa woote ñuy ñaan yàlla mu yeggalañ ci jàmm ak salaam ñuy wax nag cellules nationales yi nekk fii ci Dakaaru Njaay ñi ngi leen di woo yéen ñëpp na ngeen teel a ñëw dalal gan ñi bu ñu xëyee suba ci kàttanu yàlla ak yonent bi dinañu wàcce ay kaamin bu ñu wàccee kaamin di ba pare dinañu berndeel def ay añ bu ñu paree door ci bis bii di ñaan yàlla mu yeggaliñ ci jàmm ak salaam asalaam waaw fa tabaarakallaahu jërëjëf euh, yaay Faty Diouf mi doon wax ci turu présidente Adja Ndeye Marème Sarr jërëjëf kàddu yi rafet na kon bu ko defee fa tabaarakallaahu dañuy jël kàddu gi jébbal ko sunu responsable moral Fadila Cheikh al oustaz Alioune Mbaye fa tabarakallah oustaz ñu jox la kàddu gi bismillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin ayyuhal mushahidun alkiram asalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu mbokk yi tedd ñu ngi leen dindu nuyu te di leen ziar di leen balu àq te di leen balu di ñaan yàlla yàlla noonu yàlla boole jégal alhamdulilah jërëjëf oustaz Mouhamed Diouk jërëjëf Adja Fatou Diouf ci turu présidente soxna Ndeye Marème ak ci turu mouvement bi ñëpp seen kàddu yu rafet yi nga xam te ne jot ngeen ko yëkkati ci turu coordonnateur rek mboolem ñi nga xam te ne ñooy responsable yi sopp na bi alayhi salaatu euh, su ngeen gisee nag woote bi comme ni ko mbokk yi waxee rek loolu la dañu bëgg di woote jéemale nit ñi ci yàlla ginnaaw ba nga xamante ni yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wasallam wax ni ku jot na nga jottali balliqu anni wala aaya ku jot na nga jottali yàlla boole nu ñu ay julit ñuy àndandoo ñu àndandoo jëm ci sayyidina Muhammad sallallahu taala alayhi bu ngeen ko gisee tam dafa gis ni ñu gis ni doctrine yëpp dañoo échoué socialiste yi démocrate yi ak yeneen ak yeneen yu bari yi nga xamante ne foogoon nañ ni adduna bi ñoom ñoo koy war a àtte tey booy xool ñi doon wujj lislaam ñëpp tey dañoo échoué crise mondiale bi nga gis yëpp lu ko waral mooy tegg yoonu lislaam coow leeg xuloo yeeg mer yeeg dank fanaanal yeeg yu bari yi nga gis yëpp mooyoon yoonu lislaam moo ko waraloon ba jàppoon ni bu ñu jàppee feneen fu dul lislaam wala ñu woon ginnaaw lislaam daa ñoom lu ñu bëgg tey nag gis nañ tey résultat bi moo tax sidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam mi ñu yàlla jox ni wa in tuti'uhu tahtadu su ngeen ko toppee jub wa in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhbibkumullah su ngeen ma sopp leen topp leen yonent bi sallallahu alayhi ma sopp leen yooyu yëpp la yoo xamante ne nii moo waral ñu di di ci woote bëgg nag ñu sopp sidna Muhammad sallallahu alayhi wasallam bu ko defee mer yeeg xuloo yeeg donc fanaanal yeeg coow yu bëri yëpp li koy réglé du dara lu may rek topp sidna Muhammad salaam wa man yattaqillah yaj'al lahu maxrajan wa yarzuqhu min haysu la yahtasib loolu la alquran wax moo tax ñu bëgg di ci woote ci bis bi woo Iran ndaw suñu mbokk alxaj Ibrahima Badiane mu ànd ceeg oustaz Alioune Sall ñu ngeen xam ak El Hadj Maodo Faye ànd ceeg Mbacke la ak eh, imam Momar ñoo ñu nga xamante ne ñoo nekk ci rajo Sud FM ñi nekk seen TV ñi nekk 2S ñuy waxtaan ci lislaam bi di suñuy xarit nag di suñu ay wóolare ah tabaarakallah ñu ñëw di ko àndante ak ñun. ñu ñaan nag comme danoo feebar consultation gratuite la li ñuy consulter mooy sunu ruux yi. ruux mooy li yàlla li bokk ci yow te yàlla ndax sunu borom subhanahu wa taala moo ne isaa xalaq isaa sawaytuhu wa nafaxtu fihi min ruuxi fa qawlaw saajidin dinaa wut représentant ci kaw suuf waaye représentant boobu bu ma ko defee ba pare dinaa jël li bokk ci man roof ci moom bu booba yéen malaaka yi nga xamante ne du ngeen mooy du ngeen fen na ngeen leen sujjootal kon am na lu lu tax ñun ñu ëpp doole malaaka yi ba ñuy sujjootal mooy ruux gi nekk ci ñun te bokk ci yàlla te du dee bu ñu ko roccee ci yow nga daal dee bu ñu ko roccul ci yow nga daal di dund loolu nag mooy tax nga mat jaam yàlla ci kaw suuf loolu nag bu yàqoo bu fënaxee ba daw jëm ci yàlla di topp yaram yaram mi nga xamante ni matière lay jaamu bëgg-bëgg àddina lay topp bu ruux demee ba topp ci ginnaaw loolu rek mu ngi mel ne sareet bu jiitu fas daanaka daanaka blocage lay indi total yooyu nag li ko mën a dindi mooy consultation gratuite mooy waa ay ustaas yi boroomi xam-xam imaam yi kilifay diine yi ñu delloo nit ñi ci yàlla defaraat leen ba seen ruux yi sell looloo waral nit ñi di woote ay gàmmu di woote ay conférence di woote ay causerie di fa ay panel yooyu yëpp ngir defaraat suñu roox yi ba roox yi nekk ruux yu sell bokk fi yàlla di wax ni yaa ayyatuha nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya fadxuli fi ibadi wa duxil janna tabaarakalla di gërëm na sama section yëpp section yi nga xam ñun ñoo ak ñoom ñoo ànd fukki section juróom ñëpp ci gox yi nga xamante ne ñoo nekk ci gox yi Dakar yi waa diaspora bi fàttewuma leen ndax foofu yëpp am nañ fa ay section Danemark ba ci Argentine fa euh, fu nekk itali am nañu fële ca ca Canada ak suñu mbokk yi nekk Espagne ak suñu mbokk yi fële nga xamante ñu ngi ci Japon ak nga xamante ñu nga fële ca euh, ca ca di suñuy xarit di suñuy wëllëre ñoom ñëpp daan la ñun bokk ci mouvement bi fii nag ci réew mi fu nekk am nañu fa ay section ñooñu ñëpp na la ñu fas yéene àndanteel woote ak seeni ilimaani gox ak seen i boroomi xam-xam ak seeni i de base yi nga xamante ni ñoo fa nekk di dimbali gox ba ñun ñëpp ñuy àndandoo ñëw ànd ak ñun ñu taxaw ak di ci ak euh, imaam euh, Ahmed Diallo di nga xam ne mooy imaam raatib fii imaam Moustapha Niang di ànd ci ak Serif ay dara ak seen Alioune Sall Safiétou ak Mademba Sarr ak Ilimani Dalifor yi yëpp nag ak daayira yi fi nekk ñëpp ñun ñu nga xamante ne ñoo ko ñoo ko woote dañuy woote intégration di woote Euh, dialogue islamo-chrétien association chrétien yi nekk Dalifort ak association chrétien yi nga xam ñu ngi nekk CDE ak fépp foo xamante ne ay chrétien ñu nga fa te ambanteeg ñun jàmm ñu ngi leen ciy woo ndax dafa am acte acte bu rafet boo xamante ne dañ ko def fii daaw dañuy conférence fii ci koor gi bi ñuy conférence catholique yi nga xam ñoo dëkk ci Dalifort ñëw fekk fi ñuy baase ñu ne dem leen ngeen dem ndogu ji ñuy ñëw baas baas bi baas ko baas bu rafet fomp siège yi bañ conférence ba pare tam ñu heure ndogu jot ñu dem leen ngeen ndogu ñu tekki baas bi loolu dara gënu koo rafet kon ñu ngi ci gërëm ñëpp di leen woo ñoom ñëpp di woo murit Tidiane Xaadir Baay Laay ñëpp ñu ñu àndandoo sopp Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam loolu rek laa doon jotal ngeen baal màq asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaw fa tabarakallahu jërëjëf fadila Cheikh al Oustaz Alioune Mbaye ci kàddu yu rafet yi ak yu matale yi ku dégg ni mu waxee xam ni dara yitteelu ko lu dul euh, liggéeyal yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam à travers euh, Sud FM rajo ba mu nekk waaye à travers mouvement sopp nabi bi mu samp waaye à travers daara yu fasantikoo yi mu samp ci biir sopp nabi kon oustaz yal na yàlla fay la yàlla sàmm la yàlla dëgëral la barkeel la yàgg sa mbooloo ci barke yonent bi saa sallam kon ñu tëddee ñu tëjee kàddu gi euh, kalimatul musharrafa kon nag woote bàngoog jullit ñi na ñëpp teew <clears throat> لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله محمد رسول الله عليه سلام الله عليه سلام الله نبيا ورسولا نبيا ورسولا خير الخلق عند الله خير الخلق عند الله صاحب العز والجاه صاحب العز والجاه صلى الله عليه وسلم